daa dinga si ngaw daa dinga bëgg ñoo merci beaucoup merci grand théâtre et bonjour parce qu'il faisait jour bonsoir parce qu'il fait soir so I'm just gonna say good afternoon ladies and gentlemen brothers and sisters friends and enemies Fonkel Mame Ngandim Day. Alright. Ah Today is a big day. We will do the show. Mesdames et messieurs, Olof Ndiaye nee na bés du tuuti borom lay Samba sa bés bi nii la mën a bi da koo il a dit qu'un jour n'est jamais petit il est toujours égal à son anglais bi këfaat ko he say that a day is never small always equal Je vais vous raconter une histoire. Sois peu mes respects. Une histoire qui s'est passée tout récemment ici dans notre quartier à Dakar. Il s'agissait d'un vieux Guinéen du nom de Omar Pété. Omar Pété Il est plus audacieux que le mot audacieux, je vous l'assure. Et pour vous confirmer cela, on était dans la mosquée et il y avait un décès. Tout le monde était là. La tristesse était au rendez-vous. kenn ku ci nekk ci ñun yaa ngi yëg naqar ak tiis wu tar ci sa xol ndax ki génnoon àddina dafa sori woon ci ñun mais comme quoi on a pété silence da koy déranger. bi ñëpp toogee calme moom dafa jug di nuyoo salaamaaleykum mbokk jullit yi noonu joori noonu Mamadou Bayla Kante jaade marama dara ndaano wii kaa ñangi mo a waɗay sohla ɓe waɗay bakkal omar piti lu mu wax teg ci lu mu wax daanalee ko lu mu wax ne noonu noonu noonu en ce moment y avait un vieux là tellement énervé tellement fâché mooy paa yu tàng xol yooyu te compliqué paa yi nga xamante ne dañuy nekk ci climat wu tàngaay sol ñetti costume laal Kër Pedro laal ay noir fumé laal seen col teg balance bi ci suuf. Omar Pete li muy wax di daane leen noonu ndeke mu ngi déranger paa bi ci lu mu yëgul mu ngi koy énervé Omar Pete day daaneel dernier noonu di paa bee ko dab ça suffit noonu de Dieu tu nous emmerdes à la Écoute-moi bien, nous ne sommes pas tes marionnettes. Tu es en de nous fatiguer. Tu es en de fatiguer le cadavre. Tu es en train de l'énerver. Comment Mais non, non, non, non, à la fin tu fais chier. Nom Dieu. Waouh paa bi day wax day yuuxu nga xool ko xam ne kii dafa bon xol mais fi ma Omar neexee ndeke Omar Pété Omar Pété ëpp fit ci àddina paa bi day daaneel amat pete di jëlaat li jëntiwul paa bi loolu nga xam ful la paa bi day daaneel mu naan sa kalaati la noonu jooni noonu eh c'est bon eh, eh la xam ngeen fan laa solalee amat pete chapeau booy Medina bu weeru koor jotee ñoom dañuy yéete xët mooy teel leen fi mooy booy naan teel leen ñu dem yeewu xanaa xëdd jotul waa yeewu leen ñu def waaw waaw tout le monde ndekete ñu ne toq ci nopp Omar Pété Omar bi mu jógee dafa dugg Dakar def porte à porte football foot am génnee ne la fa yóbbu la ngaja di la répété loo révolutionnaire la si si si bankat la man luñ ko parce que man damaa ndiroo moom jikko bañkat day bañ woy bee ko énervé mu dem soppi way danaan il dee jug leen miri mi man wax naa dee jug leen sur la bu demee moom yàgg mu ne jurbe yàlla mooy ngir yàlla def nii il dee ñu def il dee yow il dee sur la doon moo dee mi mi mi il dee ñu def il dee du looloo neex de yéen a ngi tàcc mais xamu leen li neex euh, papa Keese ndax bàyyi nga xel làkk pël Fuuta yi seen làkk lépp mélodie la seen lépp gaam la waaw euh, boo weddee laajal Ousmane Tiréra rek pël Fuuta indil leen kii instrument mbala foo tungune mëmbël tal mbatt cóor ndeer cung guitare batterie boo leen indil jarul ñuy woy ñoo gën neex ci àddina man dama leen bëgg ñoom lañu toog di wax bu ñu woy nee ɓayko na inde mewo ani saako inde mewo ani ɓe jaata eɓe jalle beddo ko mewo ali hunde fuude no dakkale lakkali wona ko suma yummay baaba boye delor laaj ko mamadou toog kamma bo maako e fonkude a faami a wii ka e Mamadou Bayo Kanté dama Omar Pete Omar Pete fii laa ko nangu leen nag dinañ am ñun Sénégal fii dinañ am président pour Fouta de ak mu leen pour mu leen eh, eh, nangu leen nag nangu leen dina bokk ci réew mi waaw kon ok ok ok Omar Pete Omar Pete Omar Pete imaam ay wax imaam répété ñun ñëpp d'accord ñooy sénégalais kenn jugul di jottali Omar Pete jug ne mooy jottali dafa dëgg fit imaamu jug di def dernière déclaration ci néew bi pour ñu suuli ci néew bi Omar Pete jug yow dafa bëgg micro puus imaam ñëw bolo buré bi taxaw këf micro bi imaam di wax muy jottali imaam day wax mu këf joni noon mokka julliti siɓe naata e ndere ma imam wonɓe ñeppo ɗi ñiidi ciifoto ñiidi keeru men lijjanti wulen ñii booba ñu ngi jooy ba seeni bakkata di génn ndax nee naa leen ki gaani dafa sori woon ci ñun won peti lijjanti wulen imaamu nee na na seen takawaay seen toogaay ak tëddaay cadavre bi fi joni noon ñangi mo o wii kaa siɓe naata e ndere ma imaam mootu segam sang nañu néew bi ba nuppi yàlla dogal nañu jullee néew bi ba nuppi yéen ñëpp ngeen tàllal seen loxo imaam moo ñaan du tàllal leen loxo yi tàllal leen loxo yi s'il vous plaît yi imaamu nee ñaanal néew bi Omar Pete Diouf naan ñaanal néew bi ci noonu laay tàggatoo ak yéen di leen ñaanal naan leen lii ba jot daa tombe ñetti tombe xam loo ko xam loo ko ñu daara di ñaan ko ko la ci daara di ñu sa ke fiena la al kubé ha barke daa di ñu merci beaucoup c'est un plaisir Sungom merci beaucoup Sungom ka ka gas def waaw boy faut pas commencer à me tailler ici wax ak yow nga mel ni ku ne ci néewal il a dit quoi du respect pour monsieur Tombola Il a dit quoi Tu connais Père Noël Père Noël yeah. Oui. Bon Dieu, cochon. Dieu Musulman Plus jamais vu. That's anniversary. Yes. On va juste faire Allez Johnny. Allez Johnny. Allez Johnny. Guinée Maï. Allez Johnny. Allez Johnny. ngare joni guine maayi mais guine maayi c'est-à-dire la Guinée elle e, la Guinée elle est là voilà ouais ah oui je suis pas d'accord c'est Mamadou Tall qui va représenter la Guinée eh, ils ont la main ah là aussi bon faut lever les bras tu es noir dans le noir te vois pas qui est là aussi pour la Guinée